يا كل استكاء مع سلام مرديا هل الذي أرديت وزنينا مجاهدا مغتربا زنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقر له من قدمي ما سرى يا من كفاني من وسع واقترى واقسم بوجهك الكريم أمري من المكاري وازلق أمري وجل فؤادي عدينة ألوم أنا بعادي إنك الموت العليم wajal jawaari awtaan aw daak ilal jinaani saalimaati min idaak yaa rabbana selli salaatan jaaliba ilaa ridaaka li idaaka xaaliba ala alladi jaalani ladayhi kasaabi musalliyan alayhi سيدنا محمد والآل وزابه في الآل والمآل وقل له من أمري فوق المنى وإنك جلني سرور الأمنا يا ربنا سل صلاة زاملة لزلواتي كلنا كاملا مما ما سلام لا يزال ناميا مما يدرني جئاتي آميا على قليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك wa ali wa saabi wal dajali jami'a xidmati ridan tan jayni ya rabbana salli salatan jami'a kulla salatin zaata qarin qamiha ala allazi ma salamin nuru la yanqati ala allazi bi azaya munqati سيدنا محمد والآل وزاد والآل وصحبي وعمري مدى يا ربنا صل صلاة زايبة بكل در مع سلام زايبة لنا سهادة ورفا وسهام يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي بتقود للخرن bila idan wala zan wala marat sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal maali ya rabbana ya man taala ansina hanni ya salli kulla saarin wa sana ma salaamika alal musafayn man xaadali mooji la kulli mit fay seydina muhammadin wal ali wa saabi fil ali wal maali waktub lawoo fi kulli ma minni sadar min qidamin halawatan bila kadar wajal salaati wa salaami xayra عبادة لك تسافي ميرا وجعل حياتي عبادة تدوم لو بسارات تخدم الخديم وارفع لأرزك وللكرسي نسمك عذاب منك الخرسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من خير أمن سل بأقي قل هو الأوان على وسيلتي نبيك الآن سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمآل وابلغوا يا رب من يوم لات أهلا بسارات لدى كل آن وجل كتابتي مزايا هدى لو وزينا يزدري يا هدى يا ربنا سل صلاة بسلام هل الذي ما لنا أول ملام وقادني إليك يا ربي بتا وقتني بك اللوابي بك سيدنا محمد والآل وزعبي بالآل والمآل وأبلغ يا ربي في الإثنين فوق المنى والهاج من منيني bi xayri aafatin wa xayri kadari yaa man kafaani kadaraatil xadari yaa rabbana salli salaatan daari'a kullal mafasidi tasunu taari'a ilaa siwaani wa qabla an tantahiya yaa man ladayhi darari والمدى والآل والصحب وقد أحمدا وجعل روبي كل عبادة يا من له العباد والعبادة وابل خير الخلق في قتل البصر يا خالقا جعلته خير البصر وجل yaa rabbi fi sulaasa bi mastara rubba wa sulaasa mimma yasuru abadan wa yanfaw yaa man bi dura li xayri yanfaw yaa rabbana salli salaatan lam yura siiruwa wa misluwa laysa dura من القلائق على من فدلا على جميعهم من ففدلا ما سلام لا يرى ولا يرى من yaa baaqiyan murawiyan wa musbiha maa fi kulli malakin wa basari yaxbitu min zayadin wa busari wa jaluroo fi yàlla woo la zaydi bilaa niyatin bi xadri zaydi يا ربنا زل زلادا زافيا صدور قوم مؤمنين زافيا ما سلا من زارف مفاسدا لخيرنا وسقوة وفاسدا هل الذي بشر ومدادي وقلني سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمال وبالقميص أبلغ فوق المنى يا من جعلته أمين المنى يا ربنا سل صلاة تذيب من قصد درمان فتذبوا ilaa siwaaya sarmada ma salaam li xayrina yasubu man bihim salaam What the والآل وسابي في الآل والمآل واتد الأداة تعديدا يدوم يسرفهم لخير عبدك الخديم وابلغوا يا ربي يوم الجمعة فوق المنى ما الذي قد جمعها يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام يقود سبقى على الذي وبلي كتابا هلي لا يوجه لتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وابلغ يا ربي يوم سبتي وكل يوم يافيا من نبتي wajal salaati yadi ladayi xayra salaatin sulliyat alayhi waktub la woo biyaa busaaraatil aad wa hab la woo layyaama min yawmil aad bismillaahi rahmaani rahiim yaa sayyidi yaa Mustapha yaa sannadaa salla alayka man adaaka sannadaa أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتعليل وجود في الآل والأصحاب والأبائل وزادني علما ما تباي يا سيدي يا مجتبى يا ذا صلى عليك من تها لا ولا أزكى صلاة بسلام لادت لا تسوخ اليد إمام مدد في الآل والسعب وكفى مازر أني وجعد لي ليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا زلودا صلى عليك من سأل تهودا أسكى صلاة لي تزوق كلما لو استعيت سرمدا مسلما مع سلام بجميل عليك وسابك الدرر واللآل يا سيدي يا مختفى يا من سرى صلى عليك من دها كل سورة أزكى صلاة لي تجود بزبر بأنو جعلك من خير زبر مع سلام بجميل عليك وسع بمن خد لهم معاني يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق الإله العالمين نزل إلى صلى وسلم عليك أبدا بالآل وسعب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي توبى يا مالا دار سلام صلى وسلم عليك بجميع أهلك والأصحاب رهاب بك سميع أزكى صلاة لتجود بهداك مع سلام ليسخر يداك yaa xayra kulli waalidin wa maa walad salla alayka man taxaala laa an walad musalliman maa xiyaari ubadi kamaali xayri yaaza law abadi bi xayri raddin lilal jinaani wa bika safa abadan janaani yaa xayra mursalin li xayri umma salla alayka wa kafaa kal xuma rabbul karimun tiwul qad jalla wa qarraka alazima qad ajalla musalliman alayka fawqa adadi الآل والصحب وذا دم مددي يا من لتصديقك قد سوق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالكرام في الآل والصحب بلال سرام وبك جملة ذنوبي غفرا wa kullama alayya an ni kafara ya mustafa ya muntaqa ya mujtaba salla alayka manada ka wajtaba musalliman alayka fil alil kiram wa zabika alqurri wa kha dalil maram wali siwaya نهي وسقاء كفى وما يارم ارتقاء وجاد لي بكسرة التلاوة وذكر وصلاة بالهلاوة وجاد لي بالعلم والأخمال وبتادب وبالكمال yaa sayyidi yaa buxyati yaa junnati han kulli soo'in abadan yaa jannati salla alayka munimun qadanama bika alayna wa adaa man ni'ama wa kullu maztada ilayhi xaada laka bila masaqatin fan xaada مسلما عليك يا مختار وليزاغ كل ما اختار دنيا واخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وتيب زمان لي كما ويب وكفاني سرمدا ما لا ويب وبك لي كان وساخ للعرب وتأثير بسر وجوه من وعرب ودمني إلى سياب الأمنا وقعد لي بلا حساب المنى واعتزلني وعيوبي أمان وراد لي كل كنود الجمال وجاد لي بكون زان النسبان لي ولأمتي عزك سبا وكف عنا جملة رزايا به وساقني بالمزايا فإنه جل هل ذاك خبير وبإجابة دعاء الجدير خاتمته بسكر وسنان isbika anni qad nafaanaay yaa man sualu xayri bi dalaal iskul tali bi karamin yaa sal jalaal yallaaw yaa xaribu yaa mujibu salli ala allazi bi tujibu sayyidina zil mujizati bi salaam bilali wa sahbi muzadi salaam wa kun li nara wa kun ma'i wa kun li sa'iqan fawqa marami bikun wajal bi jaayi hayaati safiya lakka bi maal ujoori ndaafiya jërëjëf Seexu Bamba yaa ma tàndal ku la am dootu ñàkk bay ñeetaani jërëjëf Seexu Bamba yaa ma ku la am dootu ñàkk bay ñeetaani Bamba yaa jar di xëy di gontu ba far yaa defal yàlla lépp lum santaane far yàlla lépp lum santaane yaa jëfal Mustapha la xaw si ye tannoon yaa di xayrul xadimi fi diwaani yow gërëm loo nga yàlla teg ca gërëm loo ngën gi yonen wallaay yow yaay waane sëriñ du seen mappandoo du seen maas na ngeen déglu mi ndem mi borom aras maas xaataratu fil baari jawoon ba kongo ko tollal ti waay nee ma gongo ku sàkkalum kenn borom tubaa ci réew mi yow danga demul gamoo fa gee gaag réew ma Cheikh Bamba kabbar ca duusem delluwaat ca gaal cey borom tuuba gore ray noon ya gaal ga yow rek ka génn réew mi naara diitoo yaa tax nu moom sun bopp bay feetu budul ko nag dem gi nga dem ci géej tubaab yi du nu xam ni rasulay géer gi buñ neeti woon ku kaala woote dem maa yomba góor ñëpp musooro waddu tey bamba bamba yaay góor buñ neeti woon ku sol mbaxana dem kongo góor ñëpp rigeeru tey xeeñoo gongo bi nga dellu fu ne jàkk yaa nga fa sambe tey ñuy sant rek ku ne jàmba daw ci sa diine tey lislaam ngi Cheikh Bamba mooy ki ko donnu tey ngir mooy ka ko téye woon ba ku nekk joti tey riddal yi laawu alal xaddiim di ki yàlla may wax leen jërëjëf Serigne Touba wax leen jërëjëf Serigne Touba wax leen jërëjëf na ko yàlla fay jërëjëf Serigne Moustapha Gningue